Mm-hmm. c'est des hommes c'est de la politique hein, on est au Sénégal Mame Birame quelque part est-ce que le le la coalition au pouvoir pour ne pas dire le parti au pouvoir jëlul ay ay risques euh, parce que gis naa opposition bi ay coalition yu yu kii commencé taxaw dégg naa sax ñuy def dañuy def intercoalition le pouvoir ne moom soxlawul yooyu yëpp euh, Pastef mooy dem peut-être ak euh, voilà quoi est-ce que c'est pas prendre des risques aussi. waaw gis naa ay zéro virgule zéro virgule yu bëri yu dajaloo de. zéro virgule zéro virgule zéro. bu yàggee mu nekk un pour cent soo ko boolee quatre pour cent lay doon <laughs> xam nga euh, man dama euh, euh, jàpp ne déjà par rapport ak liste yi gëm naa ne quarante neuf yi nga xamante nii ñoo dem DGE. Mhm. du ñëpp ay dem quarante sax du ñu dem. puisque comme ni nga ko waxee am na ci ay tour coalition yoo xamante ni soo leen déggee rek di nga jortu ne ñi ko yëkkati. taxuñoo sérieux noonu. sérieux farfelu ay coalition rond-point ay coalition ay. <laughs> donc ça ça am na bu ma gis mu tudd jàmm ak njëriñ. ma boobu kii kii laa ko daa dégg ñu koy wax jigéen ñi laa dégg leen ah? jigéen ñi laa dégg ñuy wax jeeg jàmm ak njëriñ. <laughs> ñu def tuddee ko coalition jàmm ak njëriñ. Euh, euh, xam nga élection euh, élection présidentielle yi passé dafa am ak résultat yi dafa am lu bëri lu mu wone hmm. mu am ñoo xamante ne nii par exemple suñu jëlee deux mille vingt deux quotient électoral bi mu ngi tolloon ci soixante mille voix. Hmm. donc élection présidentielle yi passé ñenn ñi ils se sont avec vingt mille voix ñenn ñi avec trente cinq mille voix. Hmm. donc ñu xam ne. plus for reste ba sax mun nañ ko ñàkk a jàll. donc da ngay comprendre quand ñu ne dañuy dem dajaloo bokk benn coalition même bu nekkee kenn mooy jàll dinañ am ab député. Mhm. donc loolu c'est tout à fait compréhensible en ce qui concerne Pastef jàpp naa ne ñoom dañu choisir ne dañuy yóbbu seen liste. Mhm. puisque quand même dañu jël dañu tirer des leçons des coalitions précédentes maanaam yi fi xewoon. yii passé année yii dem nañ coalition plusieurs fois. Euh, tout à fait te sax quelque part euh, euh, doon na gën a métti ci Pastef bu nekkoon ne list yeewu askan wi conseil constitutionnel xaaju ko woon ci digg bi bu doon liste suppléants yi jàlluñu. Mhm. titulaires yi ñoo jàll. Mhm. parce que nombre de yi yu mujj am doonu ko am. parce que bariwuñu woon ci titulaires yi. bariwuñu woon titulaires yi parce que coalition la. da ngay teg Ousmane Sonko teg ay Mbodj teg Déthié Fall teg xalifa Sall. teg Malick balaa ngaa woo keneen ku bokk Pastef. il faut leader yi jeex. très bien léegi nag bu nekkee ñoom bañ demee coalition noonu li nga xamante ni moo njëkk a foire avant sax yeewi askan wi mais c' est l' intercoalition wallu ak yeewi askan wi. Mhm. on a vu que dès l' instant que wallu téye na ay député la première chose bu mu xalaat mooy bëgg nañu jël présidence assemblée nationale. Oui. ce qui était pour man <laughs> très aberrant. yow mënuloo nga ñëw ngeen teg ak une coalition ñu ne am ngeen quatre-vingts députés avant même ngeen di discuter entre vous yéen ñi def coalition ngeen ne déjà yéen soxla ngeen présidence assemblée nationale. Mhm. donc bu demee noonu ak tamit d'autres députés yoo xamante nii jàpp naa ne su nekkul woon wàllu askan euh, yeewi askan wi. su nekkul woon Ousmane Sonko pour être précis. Mhm. gëmuma ne xalifa Sall ak soo taxawu doon nañ am treize députés. te fu ñu mujjee ba ñu demee ba assemblée nationale bien vrai qu'au départ ils étaient soudés mais dañu mujj féewaloo. Mhm. léegi nag bu nekkee yow au pouvoir. bi ñuy dàq bi ñuy dàq élection yi waa wàllu ñi ànd ak Ousmane Sonko dem assemblée ñoo daje ànd ak waa Bennoo. <laughs> voilà tout très bien. léegi nag bu nekkee ne yow loolu yëpp da ko da nga ci jaar ñuy demaat élection yoo xamante ni contrairement ak bële passé bii tu ne dois pas parce que boo loupé. nga jël ab coalition. Mhm. boo xamante ni da ngeen a ànd ngeen am cent députés les trente te tourne doo yaakaar naa ne di nga bëgg a ab réforme mu tëla mhm. donc tu prends toutes tes garanties même bu nekkee garantie amul fenn on parle souvent des alliés. Hmm. mais gis nañ fi Djibril Ngom bokk Pastef ñu koy wër pendant 48 heures mu dem feeñee ji palais <laughs> donc il ne ça ne veut pas dire que ne waa alliés yi rek ñoom la ñuy joxoon donc am na si ñoo xamante ni Pastef la ñuy bokk. mais def def nañ ci trahison. mais dans tous les cas li nga xamante ni moo gën a ñàkk risque. Hmm. mooy nga jël ñoo xamante ne ni yéen a bokk parti mu leer na sax suba ñu bëggee démissionner en démissionnant. <laughs> nu mu tuddati du parti. dañuy perte directement le poste de député. donc bu boobaa di nga xam ne boo gañee élection yi nombre de député yi nga xamante ni moom nga gañee élection yi au moins di nga assuré wu ne. moom nga est-ce que yokk euh, bala ñuy que le fait que defe naa Mamadou Diong laa dégg mu wax ko keroog ci benn chronique am que ni diggante bi Diomaye ak euh, Ousmane Sonko nekkee au pouvoir. quand même on a remarqué que ni coow yi nga fi dégg yu ci bari ah, en tout cas yi ci ëpp. concerné wul des éléments de PASTEF c'est-à-dire que y' a des éléments de PASTEF yi nga xam ne ñoo nekk au responsabilité déggoo leen ci yenn coow yi coow yi ñu dégg mooy ñi nga xam ne seen ay alliés lañ ñu am cité l' exemple de Cheikh Oumar Diagne l' exemple de l'ONAS ak Cheikh Dieng yooyu est ce que quelque part Ousmane Sonko ne se dit pas ni je connais mieux mes hommes euh, ñoo bokkal parti que d' autres <laughs> waaw loolu c'est pour man cela va de soi. Mhm. puisque déjà sax xam nga allié moom. concours de circonstance mun na créer une alliance. Mhm. maanaam ñenn ñi nga xamante ne nii élection bu ma jëlee exemple PDS. Mhm. dem nañ ba à un moment présidentiel yi taxaw na seen candidat bokkul. ñu ne dañuy dem soutenir yi. Jomaay Jomaay. est-ce que choix boobu c'est un choix de boo xamante ne nii ki ko def. day continuer ànd ak yow. ba nga gérer le pouvoir xam nga loolu c'est différent. donc bu nekkee ne da ngay nekk ci euh, nu mu tuddati coalition de circonstance ci ngay ëpp ay doute par rapport ak ku nekk. nu mu mën a comporté woo suba ak gannaaw suba. que par rapport ak ñi nga xamante ne nii. dañoo bokk Pastef. dès le départ ñu ne. effectivement. mooy li président Boubacar Camara sax un bloc homogène. un bloc homogène nekk ak voilà euh, Mor Gassama si ñu terminer ak président euh, pour yow